ne ko ayo ay ah. waay eh ayo ku oh, merci beaucoup gisee beaucoup kontaan nañu ci yow bu baax a baax a baax damay xool ci public bi ñaari nit ku góor ak ku jigéen ñu xool ndax yomb na walla yombul mais doxaan bu neexee kii doxaan am li nga xam ni moom mooy éloquence mën la convaincre ba doxaan la foofu soxlawul mettil da nga koy nangul ñu avancer bu waree nangu ngeen wax ko su baaxul ngeen wax ko du ma leen may jàmm man seytaane la damay jël kenn ku góor ak kenn ku jigéen s'il vous plaît ana jigéen kuy porté volontaire ma xool amul da ngaa pare pour ñu doxaan la mais yàlla yi ñoo bëgg góor de moom pare ne pour ñu doxaan ko bu yàgg ana ku jigéen kuy porter volontaire ñu doxaan ko soxna si pare woo pour ñu doxaan la je suis désolé. Abba Show. ku ñëw boo ñëw dañ lay yuxoo wuu wuu kaay ñu doxaan la kaay tey la ñuy doxaan sa kaay yéegal yéegal eh <laughs> mette xumbal la la toogal toogal. tarkal la ana ku góor ki bëgg a doxaan. eh non sa waa koñ la sa waa koñ la kaay kaay kaay kaay kaay. booy kaay kaay kaay. Abba Show. toogal. toog maa la koy wax. lu ma koy wax. toogal non lu ma koy wax. xamoo li koy wax. noo tudd. Penda. foo dëkk. Cité Fadia. Penda mu ngi dëkk Cité Fadia. nga dox ci mbedd bi ba dajeeg Penda duma la laaj sa tur yow yaay présenté wu. kii mooy Penda moo dëkk Cité Fadia romb na la ci mbedd mi am nga loo yëg nga daw intercepté ko di commencé wax ak moom vous avez la parole. waaw waaw waaw waaw teel micro bu baax teel micro bu baax. ça va miss. miss ça va. Ah, waaw doo ma jox loxo bi. yaa ngi si jàmm. waaw c'est waaw c'est comment le nom. Penda. ah Penda. oh sa tur bi neex na de. Penda. c'est te te te te te mais Penda yow belli nga de. xool ma nànk doomu jàmbur laa. non macha allah macha allah macha allah. mais eh, Penda yow mais yow foo dëkk yow Penda. Cité Fadia. Cité Fadia. si déet déet. non man Sicap dëkk xanaa gisoo ni ma mel. la kay yaa gis. Kaana nga déclaré. waaw. Sicap laa dëkk gis nga yaa ngi li waa Kaana nga déclaré. bilaa yow. ñu ne mënoo doxaan wàccal wàccal ñu ne doxaan wàccal wàccal. nii ñamaxit lañu bëgg mu doxaan kaay ñamaxit kaay s'il vous plaît kaay cëtëtëtëtëtët na ñamaxit ñëw na ñamaxit ñëw salaamaaleykum waaw waaw penda waxal ñi li fi ne man jarul ma leen di wax li fi ne jarul ma lay demande dara s'il vous plaît si à la demande générale waxal ñi li fi Akit kono mënoo doxal waaw mais lan moo fi ne. mu ngi lay soog gis kii mu ngi lay soog a gis tey la lay soog gis nga nga waxal ñu li fi ne. defal nank mais am na yéen ma ngeen ko yónnee. Penda ndax yéene nga ma sa xol. Penda yi ñu ne mënoo. léegi kon Penda fi ñu toll nii xam naa ni sama sance ngay mujjee doon alors pour commencer booy doxaan da ngay complimenter ki ngay doxaan dafa am lu femme bëgg dafa am dafa am lu femme bëgg femme dafa bëgg nga koy complimenter bu loolu amul wax ni nga rafetee wax ni nga sañsee wax say forme lan la wax li ngay xeeñ lan la wax ko sa cheveux lan la wax ko foo dëkk quelle beauté africaine mais soxna si li nga takk nii xanaa gun ak band moo la ko jaay waaw quel crop top mais pardon noo tudd Penda Penda man papa laa enchanté ay gis naa si yow ma benn kii wow wow wow wow gis naa si sa ah numéro laa bëggoon s'il vous plaît. appel bi. nangu. ñii dañoo bëgg ay matériel kii du nangu du nangu du nangu du nangu du nangu du nangu Penda tàccu leen ma Penda bu baax a baax a baax a baax a baax a baax merci beaucoup ew ew eh eh waay naxaar